jafe-jafe source a moo bind ne juróom manifestation yoo xam ne dinañu ko amal ci réewum Sénégal tey ji waaye nag manifestation yooyu dañ ko autorisé waaye ñi nga xam ñoo nekkee ci police bu Sénégal ñoom nag jamono ji dinañu amal ne a daanaka jege si na benn fan ci weeru décembre waaye nag boo moytul élection yooyu danañu ko puus laa wax élection yi danañ ko puus yóbbu ko ba beneen naal gu mën a xew turbine yéene di ñu xamal ne Barthélemy Dias di ñu xamal ne pétrole mi nga xam ne nag moom ci réewum Sénégal Sénégal yéen i bi dañoo xamal ne moom baxte di xamal ne kaddu yi nga xam ne daal yëkkati ko maanaam mbirum pétrole mii nga xam ne daal njiitu réew mi kaddu yi ko ci lépp la wax ak ki nga xam ne nag moo di Aly Ngouille Ndiaye te loolee yaakaaru ko yaakaaru ko kaddu yi Barthélémy Dias la mi ko yëkkati la tribune yéen i bi dañu xamal ne ak lu mën di xew ñi nga xam ne nag mooy kuréel gi nga xam ne moom la tuddee aar lu ñu bokk boo moytul maanaam ndaxte am na ñeneen ñoo xam ne daal ay groupe yoo xam ne war war nañoo amal seenum ndaje boobu yéen kaay bi xamal ne ñi nga xam ne nag nga xam ne nag ñoo nekk foofee lànk nañu de daal ñoom daal duñ ca dellu ginnaaw tey ba suba exclusive yéen kaay dañoo xamal ne maanaam daal mbir moomee nga xam ne daal mooy élection locale yi li nga xam ne daal ne ñi nga xam ne daal ñoo ci war a bokk 20 millions yoo xam ne war nañu ko joxe yéen kaay bi dañoo xamal ne ñi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee bëri ñoo xam ne dañoo ñaaw lu baax lu ni mel ñoom mu yëkkati moo boobee daal match la boo xam ne dañoo war a dóor waaw si Sénégal dafa war a mën a dóor dóor daal moo leen war le soleil kaay nañu dóor dëgg kay moo war ndax gaynde Sénégal sénégalais bu fekkee ne fa ñu toll mooy match ba daal maanaam dóor mbaa nga ñëw rek ñibbisi lekk si ceebu jën